xam naa tout droit mbër nuyu nañ la fay naa la Lamine double moteur bu palmarès lañ koy wax waaw gis nga de daa mel ni lamb ji jeudi la commencé vendredi samedi waaw jeudi ba tey ñaata jëli nga am yegg nga final ñaata jëli nga avant yegg si final quatre combat laa am quatre combat waaw quatre combat am laa am taxaw final quoi ah. ah. waaw final bi moo war a def cinq waaw gis nga waaw final bi moo koy mottali cinquième ya? mos nga bëre fii ci Gandiaye non non maa ngi fii doog a mais fii soog a ñëw final noo gisee lambu Gandiaye. waaw ah, lambu Gandiaye moom neex na trop neex na animation bi neex na waaw arbitrage bi moom normal na. Ah. waaw lépp jaar na yoon daal. waaw lépp moom macha allah. daf naa lu dajeeg CFA xam nga kii CFA. waaw CFA daan naa ko Fimela. Ah. waaw daan naa ko Fimela. daan naa ko Fimela mu a nekk revanche. gis nga revanche la de mais du yomb de. waaw waaw doo gisee final bi. ah final bi nañ ko bëre si jom ak fulla ak fayda rek. Ah. waaw. billahi léegi Double lan lay wax waa Palmarin lan lay wax ay supporteram ak ñi koy bëggee. waa Palmarin aw ma ñoom ñëpp gis naa ñu si man moom sonn nañ si man trop sama supporter yi. waaw kuy bëggee Double rek maa lay gërëm quoi lay sant bu baax a baax. billahi wallahi tallahi. Ah. billahi. aja kala wéer gañ. waaw merci beaucoup Lamine. jaajëf jaajëf Fatou. aja tout som. bonam nice lépp cool alhamdulilah CFA final na fi barka dem ñàkk tey final waat nga waaw gis naa ko de daa mel ni nga Njaay géew gi baax na si waaw gëna moom jig na ma waaw billaahi ah. waaw jig ba samedi yaa ngi ñaata jël nga am non final maa koy def 6 final moo war a def 6 waaw noo gisee lamb Gandiaye bi waaw Gandiaye moom neex na ah. billaahi lamb ji neex na ah. am na ambiance lamb waaw Double Moteur nga war a dajal final. waaw Double nee na daal na la fi nga war a jël sa daal na ma fi mu laa. waaw waaw day laa war a jël revanche. noo fas yéene ma ndam rek comme ni ma doon ba demi final bi. waaw di ñaan yàlla may ma ndam rek. waaw ci kawam. man la quoi. waaw. waaw. c'est wax waa Somme fi mu jaxaaw. say supporter am ñu koy bëggee. waaw waa Soom ak Soom ak Jaxaw Omar leen fay quoi. di leen bëggee. lu mel ni Ousseynou Ndiaye ñoom Ibrahima Diabe ñoom Madou Ndiaye. ñoom sama xarit quoi sama doomu ndey Birane. ñoom Jiyaaramu ñoom Jibril Nganeem. ñoom Lamine bii ma àndal yëpp quoi billaay walaay di bëggee sama mafia bi yëpp. di ñoom tam dimbal quoi. waaw man daa la quoi. waaw ñu gën see jàpp ay ndaw lañu tole wuñu fu ñuy amee bay ñàkk quoi waaw kon aca amul ragal tele weer gañ waaw ok merci tout droit sunum salam aca eh. droit fi daan raw gadu bu sam taxaw moo ñu woon gannaaw Amath Diokh Double Moteur bu Palmarin la jàkkaar lool fii ci Gandiaye samedi le 4 juin 2022 CFA double de